ah xam naa ni nag tey moom ñaar ñi nga xam ne ñoo dem ba Europe mel ni ay lippa koña ki muusi naan diwlin di xeex xeex bu mett ñoom nag seen xeex bi du dara dul komplo diggante Pawlish Mbaye ak Adamo du xeexub dara xeexub pon komplo la waaye bu ngeen demee Europe di xeex dan naan kon sénégalais yi ay baadoolo lañ ca bu leen yàqal muudu muudu ya fa nekk yi daan seen doon di liggéey yow rek leen nga mel ni mus ku naan diwlin yow beneen bi leen la bàyyi leen moom musu xale bi laa doon waxal beneen bi li ma leen di wax lenn la bàyyi leen dem ba Europe di fa bagaarante la bagaar Afrique la bagaar na des Afrique ba Europe moom boo xësee ba dugg defar sa liggéey ndax bu yàggee tubaab yi dañ naan sénégalais yi ay xeex xeexkat lañ sénégalais yi ay bagaarkat lañ bu yàggee bu ñaani visa duñ ñu may de ndax dañ naan ñoom fu dugg dugal fa seen ak la doon la Pawlish Mbaye régleel Adamo régleel wuy ma yéen lu leen neex def leen ma ñoom dañoo kompaloo barke bi ma xaabal ak man xeexu xeexu la rek man ma ko gisa noonu Pawlish fëgg na benn coup Adama waaf ndeysaan mu mel ni diggante kan <laughs> diggante diggante saamaan maanaam saamaan ak gisit bu ñuy xeex daggee ngay gis ma maanaam loolu lépp ci la mais ku jëkk sa morom yëy <laughs> ñoom ñaar ku jëkk sa morom yëy mais bàyyi leen xeex bi Sénégal ngeen dëkk bu ngeen génnee wane leen taaru Sénégal li lay wër ak mbokk yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm waa bay nu ci yéen mu xurujukum guppoo guppa guppa faadaa gupp laa man gupp lëfër lëfër Viviane yëngal na réew ma Viviane kenn da yow Viviane Ndour <laughs> Ndour waari mbergaan loo woyul baaxut barke bi mal lakk ba fifi woyal man bëgg faal kontaan naa ci yow jërëjëf <laughs> maaleykum salaam jërëjëf